Seite nicht so lang. Sollte Fragmente. Oder das ist ja schon mal so ein Fragmente. asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xam nag yéen ñuy bàyyi xel ci seen euh, chaîne euh, bi nga xam nag chaîne de production euh, Tawfekh production ngeen di ko am ci YouTube bi mbokk internet yi nag suñu numéro entretien ñu koy wër di am di wax ci fànn yëpp wàllum économique politique éducation santé secteur yëpp bàyyiwul benn tey ji nag sunu numéro bi ñu ngi ko jagleel wàllum politique tey ji ñu nekk fii ci Grand Dakar fekk fii benn leader ci wàllum politique fii Euh, ci gox bi ñu koy wooye euh, Serigne Mame na Ndiaye moom mi file nag euh, nekk ci mouvement bi nga xam ne moom mooy mouvement génération jëf génération jëf na Thierno muy mouvement boo xamante nag te jii bëri na ñoo xam nag tënku nañ ci biir ngir fas yéene nag gunge président Macky Sall président de la République du Sénégal ñu ngi lay nuyu maam Thierno. buñ la koy defee présentation ci tënk day baax un indi historique bi ñun dañu nekk ay ndaw Grand juddoo Grand Dakar màggee Grand Dakar yaroo Grand Dakar yàlla dogal Grand Dakar comme ni ñu ko xamee nit ñi am image bu xaw a ñaaw bu ñu ci doon teg ni Grand Dakar quartier wu bandi la quartier agression la quartier wu drogue kese fi am. ñu ñu gis ni loolu dañ ko war a mën a xeex ci la depuis les années 2000 ñu créé des mouvements associatifs. mu nekk lu ci mel ni association des jeunes de Grand Dakar lu ci mel ni ñàkki jariñu lu ci mel ni bëgg a dimbali ci waajur lu ci mel ni JDGD association Grand Dakar daal koñ bu bëri koñ bu nekk amoon na association ñuy liggéey ci wàllum éducation ci wàllum santé ci wàllum environnement parce que jàppoon nañ ni euh, mbir mi du toog kese naan Grand Dakar du ñu ay bandi mais c'était de prouver que Grand Dakar amul kese bandi ak kii doog ci loolu nag lañ dem xool ni. benn problème bi Grand Dakar amoon mooy problème mu reconnaissance parce que en réalité ñun mag na suñ juddu 1960 ba 2000 dañu gisoon ne Grand Dakar mosul am député mosul am ministre mosul am directeur d'une société nationale c'est-à-dire que politiquement Grand Dakar amoon beneen benn reconnaissance te Grand Dakar moo nekkoon la troisième circonscription électorale la plus importante du département de kii Dakar ci loolu nag lañ dem aux élections créer mouvement citoyen tuddee ko le mouvement citoyen jot na defal sa gox ñu dem aux élections en 2009 bi ñu demee élection 2009 ñu am 12 pour cent de l'électorat am quatre conseillers municipaux loolu aussi mu nekkoon lu lu am solo parce que moyenne d'âge bi en en 2009 c'était depuis 25 ans du mouvement citoyen Jotna mouvement boobu nag moo continué demaat élection en 2014 en 2017 ñu gis ni président Macky Sall kat am na cëral bu mu commencé cëral Grand Dakar. ci bi ñuy installé le euh, bi ñuy bi ñuy installé le haut conseil des collectivités territoriales mu jël quatre conseils na ma leen à Grand Dakar ci élection législative yi aussi mu jël Jean Baptiste Diouf boole ko ci liste Benno Bokk Yaakaar mu nekk ci député mu jël ndey Salimata Dieng di responsable bu APR à Grand Dakar fal ministre de la femme c'est-à-dire que ñun kon commencé ni kon reconnaissance bi ñu doon casse bi Grand Dakar commencé na changé parce que avant mu ñu fa am dara mais en 2017 poste de responsabilité yooyu ñu am ko ma décidé nag engagé wu maintenant carrément en politique quitter le mouvement citoyen pour encourager euh, le mouvement politique c'est la créé euh, le mouvement Génération Jëf ak maam Thierno. Mm-hmm. Général Diouf ak maam Thierno ci élection yi nga fi lim yëpp euh, ci ban bannière ngeen demee ci élection yi dañu amoon mouvement citoyen ñu tuddee ko mouvement citoyen jot na defal sa gox mais jamono jooju xam nga ni élection municipale mouvement citoyen kese mënu woon dem. parti wu Cheikh Bamba Dièye bi ñu de fsd yi moo ñu àlloon récépissé am ci cadre boobu la ñu bokkee woon ci élection yi mais liste bi mu ngi tuddoon liste jot na defal sa gox. le Grand Dakar. ci ci ci ci politiquement. Euh, du sax du mooy parce que en réalité li mu defoon mooy daf ñu aaloon récépissé pour ñu mën a bokk à des élections municipales c'est-à-dire que ñun on était dans notre propre mouvement qui était le mouvement citoyen jot na dafa sa gox mouvement citoyen pour mu bokk jamono yooyu il faut nga am partie bu la àll euh, euh, récépissé voilà loolu sax moo war a tey jii système parrainage bi ñu sant ñu samp ko ngir aussi ne xëy na ci jàngat jéem a limité parti xam saytu li ñuy duggee mois je pense que quand même, ça toujours été une injustice de ne pas permettre aux candidatures indépendantes ñu mën a bokk quand parce que man jàpp naa réew mi ñun ñëpp ko bokk ku mu nekk parti politique yeeg candidature indépendant yëpp war nañu mën a kii bokk je pense que parrainage bi une solution ci loolu par rapport au parrainage comme ni ñu ko waxee ñun notre candidat c'est le c'est le président Macky Sall moom ñu jàppale vraiment depuis loolu ngi ciy ñoo ngi ciy liggéey en grande cas dans grande cas ñu def ay ay ay comité sectoriel de kii parrainage vraiment liggéey bi ñoo ngi ci avancé bu bu baax a baax en ce qui nous concerne pour le pour le mouvement génération jëf bu baax ba ba commission parrainage bi bii grande cas ñun ñun ñoo ko jiite mais am nañ ci objectif au moins à rabbi mille parrainage waaw tout en sachant que Grand Dakar président de la République 11000 500 la dénk waa Benno Bokk Yaakaar bu Grand Dakar Benno Bokk Yaakaar boo xam ne am na APR am PS am P am euh, AFP am yëpp ñun moom génération ji fa moom Thierno sosoo nañ ci 1000 parrainages. yéen sosoo ngeen ci 1000 parrainages mais danga wax loo am solo sànq nga ne euh, booy xool dafa Grand Dakar dafa tumurank woon wàllum ay responsabilités. Mm-hmm. Euh, ci instance de yi. Mm-hmm. mais ñi ngi fi lim yëpp jamono ji ñoom am nañ ndombal tànk mu mel ne kon kon yéen ay yoon Macky Sall sigil na mais tey jii est-ce que ci wàllum askan bi seen dundin ci wàllum euh, assainissement société bi ni ñuy dundee fii de façon sociale est-ce que loolu ñoom ñu ngi ci gis seen bopp. Euh, déjà il faudrait reconnaître que par rapport à la connaissance quand même il a eu à faire ce que ce que notre président n'a fait parce que quand de 1960 ba 2017 c'est 57 ans quartier bu mel ne Grand Dakar su ñu nee mosul am ministre mosul am député doo ko gëm. au moment wu ay Pouye Babab dañu am ay 2 3 députés ñaar tey dam Gandaka musul am c'est-à-dire que ñun loolu doomu Gandaka dañ ko mus a xeex te lépp président Macky su ñu ko defalee c'est-à-dire que ñun jàpp nañu desatuñu dara. en terme politique en terme politique parce que reconnaissance boobu ñun jàpp nañ ni mooy li amul lu gënoon ëppal solo Grand Dakar te loolu président Macky Sall defal ñu ko man jàpp naa ne le président Macky Sall defaluñu dara. maintenant en terme social politique yi c' pas c' pas des politiques communales c' une politique nationale lu ci mel ni bourse familiale bi Grand Dakar gis na ci boppam lu ci mel ni Euh, DER bi mooy projet yi nga xam day financé jeunes ak jigéen ñi Gaddaxaar gis na ci boppam parce que ñu génération jëf ak maam Thiam liggéey nañ ci liggéey bu am solo dajale nañu jeunes yi ak jigéen yi boo leen pour que déposer pour ñu déposer ay projet ci DER bi te yaakaar nañu ci première tranche bi ñuy finance incha allah rabi ñoom ñoom ci dañ ci bokk maintenant ci wàllum assainissement quand même il faut de reconnaître que à Grand Dakar il y un réel problème à Grand le sur le plan de l'assainissement ce n'est pas mooy canalisation yi canalisation yi quand même am na problème te pour man loolu c'est un problème dans dans tout le département de Tuc Dakar boo xoolee c'est aussi valable en ville à la Médina euh, à Grand Dakar à Colobane à Fass yëpp problème bi la ñu am même parcelle même problème am cela veut dire quoi donc euh, plan d'assainissement Dakar la ñu war a revoir et que loolu quand même maa lancé appel au président de la République parce que pour man c'est une bombe qui est il faut commencé na magget il faut que nit ñu mën ko recevoir parce que boo dee xool Grand Dakar du euh, koñ yaa ngi bouché Médina moo noonu Fass noonu cest à kon am na kii problème je pense que sur le plan de kii la l'assainissement quand même il il y de la politique à faire quand am na solo mais aussi Grand Dakar wax nga ko sànq mais da nga ko cof gis nga mbirum jeunes yi euh, nemmeeku nañ ki bërëb yi gën a ëpp toogaay nu waxtaan. fii Grand Dakar bokk na ci bu buñ koy lim. Mm-hmm. ñoo xam dañuy toog di xëy di weññi poto lampo ñenn ñi amuñ jàpp. ci wàllum xëyum ndaw yi. je pense que mooy mooy problème mu chômage bi ngay wax c' est un problème national Sénégal ñëpp xam ñu Sénégal jeunes yi fi ëpp mais malheureusement problème liggéey dafa xaw a sooxe bu baax a baax mais moi je pense que aujourd'hui président am na lu ñu ci commencé def mooy l' auto emploi bi nga xam ne na ko def ci wàllum DER bi mais aussi ci wàllum projet de jeunesse nga xam te ne moom moom moo koy moo koy financé mais man li ma gëm mooy ni que il faut que jeunes yi du état moo joxe liggéey dalay lay accompagner la appel bay lancé mooy il faut que jeunes yi xam ni actuellement fi ñu fi ñu toll mbir mi initiative privée moo ñu mën ci génne parce que état fonction publique bi mënu recruter lu lu bari li nga mën mooy da nga jël sa initiative di di liggéey état bi fekk la si jàppale si mais état ku toog si sa kër di naan ataaya bañ kii loolu du état moo lay moo lay ci jàppale boo dee xool ñun ci tax tuddee suñu mouvement sa génération bëgg a wane ni mag yi li ñu fi bàyyi woon jëf la parce que avant Macky li ñu fi bàyyi woon mooy di liggéey di ñaq di tedd di ci jariñu boo xool suñu mag yu baax yëpp muy Serigne Touba muy maam El Hadj Malick muy famille Kunta Kunta ku si nekk ci ñoom da nga doon liggéey te xaaroo dara ci état te ñoom loolu ñoo ngi fi seen njaboot ngi fi ba tey am am nañu leen yor c'est-à-dire que man appel may lancé jeunes yi aussi ci cadre mouvement génération jëf bi ñu xam ne àdduna fi mu toll tey ni ku nekk da dem ñàq sa bopp toog fajul dara. parce que en réalité mënoo di toog di naan ataay ba pare bëgg toog naan état nu mu wutal liggéey état li mënu mooy accompagner yow yow mën moi je pense que da gis Sénégal kese ngay gis nit ku jàng ba am bac plus 5 nga xubal damay xaar état pour mu wutal ma liggéey wala dara ça va pas mënul dem il faut dire que nit ñi di jël seen responsabilité di jël initiative privée di dem di ci liggéey parce que en réalité ak fu mu mun mënti nekk ci monde bi état li mu mën a jël c'est limité le secteur avec l'informatisation de kii système de plus en plus emploi day gën a jafe dans les dans les entreprises privées c'est-à-dire que il faut que nit ñi commencé xool kon yan liggéey la ñu mën a commencé liggéey te loolu pour man initiative donc moo ci mën a am di di ñaax aussi président di ko wax ni problème de jeunesse bi problème bu rëy la biir biir kii Grand Dakar que vraiment DER bi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. il est vrai que am na lu ñu commencé mais vraiment ñooñu jot seen financement ba ñu war a mën a financer ñeneen mais appel dans ménage jeunes yi mooy dañ jël seen initiative bàyyi naan ataay bi jug seen kër yi di wuti liggéey. liggéey nag moom da ngay commencé da ngay commencé nànk-nànk rek ba fekk la ndimbal la ci fekk loxo loxoy borom. Hmm. Hmm. Hmm. DER bi donte première phase bi jàll na ci wàllum financement yu njëkk yi loolu dañ cof la woon rek moom euh, délégation générale moom moom la yitteel. mais lu soxal ci wàllum ba tey euh, politique fii ci Grand Dakar bu ñu déggee ni nga analyser yëpp mooy fii ci Grand Dakar moom mën nañu jàpp ne euh, coalition benn Bokk moom noppi na fi maanaam teg na fi loxo daal. xam nga politique nga koy calculer élection yi fi mus a am yëpp fi mus a am yëpp benn bokk yaakaar moo ko ñëw très largement parce que en réalité gànnaaw ñi fi am doole c' est le parti socialiste c' est le la est l' la c' est l' AFP la génération Jëf ak Mame Thierno te ñooñu ñëpp àndandoo nañ ci benn bokk yaakaar. c'est-à-dire que ñeneen ñi fi xaw a lapp lappitude sax moom mooy ñi ànd ak Khalifa Sall te euh, seen doole wàññeeku na. non non moo ñu dëgg parce que euh, en fait du du sax xeet mais ñi fi ñi fi élection yi fi mu sa am yëpp en tout cas benn bokk yaakaar moo ko gagné très largement. te boobu ñun fekk na ñun bokkaguñ ci. te ñun bii ñëwee euh, dolli cere yokk yokk yokk ñeex la. Euh, à grande carte, je ne le pense pas. Je ne aussi au Sénégal. Moi, je suis de ceux qui pensent fondamentalement que le président de la République passera au premier tour. lépp ci ba tey ci parrainage boobu parrainage moom gars yi moom yaa ngi wax lappe-lappe mais léegi war a sax ñuy cëppi mooy parrainage bi président moom dafa mel ni ku wóoluwul bilan pour mën a jàkkaarloo gars ndax nee nañ parrainage moom doy na waar quoi. non bi xam nga quoi qu'on puisse moi je t'ai expliqué ñun notre problème notre, principal problème bi ñu bëggee bokk à des élections c'est-à-dire ñun en 2009 on voulait partir sur la bannière de mouvement citoyen la loi ne nous le permettait pas c'est-à-dire que donc parrainage déjà am na problème bu muy réglé il faudrait que il ne faudrait pas que les partis politiques aient quand même le le le le truc monopole je pense que ñeneen ñi aussi am am am nañ ci wàll déjà boo jëlee ñun rek li ñu bëggoon def rek parrainage bi tey permettre nañ ko mais deuxièmement aussi tey aux élections yi ñu passé mais vote bi ñëpp gis nañu nu mu ci demee Sénégal tey ginaar gu jug ni dafa bëgg a nekk candidat mbuur bu jug ni dafa bëgg nekk candidat mais loolu il faut que ñu mën ko régler moom je même je suis même de ceux qui pensent que au, au, on même doit aller au-delà de ce truc par parrainage parce que même avec le parrainage am nañ plus de cent cent candidats à la Tucan candidature bien que bien que bien que on sait que sur les cent candidats à la candidature ñi ci nar am ñi ci nar am son cinq signatures ils ne feront même pas vingt loolu moom lu leer la Mais même moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit même aller au-delà de ça. Parce que quand même, on ne peut pas être dans un pays avec 15 millions d'habitants, nous sommes à des élections présidentielles, nous sommes à 15 candidats quand même. Ce n'est pas sérieux. Et que à toutes les élections, depuis 1960, à part à l'exception de 4 ou 5 candidats, il y a 0,5%. cest y a problème dans le système politique et que l'on doit régler. et je pense que parrainage bi début la ci mais même je suis de ceux qui pensent que dañu war a bu élection présidentielle yi passé dañu war a dem au delà du parrainage il faut dire que quand nit ñu mën leen jàngal que parti di dem à des coalitions bu ñu dem à des élections coalition lañ la ñu demee mais qu'est-ce qui nous empêche ñu ñu coaliser ces partis là ñu taxaw ñu am ay partis yu fort quand mais mais gars yi ne nañ ci wàllum euh, euh, pour rationaliser. pour rationaliser parti yooyu yëpp loolu am na duñ ko leeraloon ci constitution beeg yooyu. daanaka mais xam xam nga quand même dafa am fenn foo xamante nii dafay am tuuti tuuti fay bu mu bu am parce que di tooy da koy wax trop de démocratie tue la démocratie parce que en réalité. Moi, je pense qu'il est inacceptable dans un pays comme le Sénégal que nous puissions avoir plus de 300 partis. 300 partis Sénégal, là, l'un c'est c'est comme si tout le monde faisait dara ci politique te nit ñi dañu war a liggéey war ñu yem ci politique nit ñi dañu war a liggéey c'est seulement au Sénégal ngay gis nit koo xam ne métier moom la politique mooy sama métier.